tey euh, dañoo organiser won euh, suñu conférence annuelle comme nous koy défé depuis 4 ans té la suñu e édition euh ñong ko commencé depuis 2014 AJVDSS nak mom moy signifier euh, association des jeunes volontaires pour le développement de Salistation. ñi taxaw ni sama wette ñom ñoy représentant AJVDSS yeneen ci bi ni bo méré bu la fekkee nga tok néna nga tëdd nee bu la nga tëdd nee na nañ la may ndox nga naan nee na buñ la mayee ndox nga naan nee na balaa sa mere giif lool nee na jugal nga dem jàpp julli ñaari ràkk nee na bu ko defee mer mi daal di jeex. association bi di wax ne rek jeune nekkul ne da nga war a organiser sabar ay soirée du loolu. dañuy ñëw def euh, ay conférence avec yeneen quoi les jeunes yi mën nañ développer sans ay soirée ak ay yeneen a yeneen parce que ñun fu ñu commencé moo njëkk a base suñu base mu gën a baax parce que ci conférence sañ commencé sañ commencé ñu ngi gërëm nag koñi magu koñi bu baax ne su doon ñoom suñu conférence bi ñu ko mën di eggale chaque année demoon nañ bay wayee di mais toujours rek ñoom la ñuy àndal ñu ñuy encouragé duñ duñu motiver di wane ne ay jeunes ngeen da ngay war a ci conférence bi ngeen di bu leen ko mës a def bu leen ko mës a tardé dinañ ko def chaque année di gërëm nag suñu président bu baax nag di ko gërëm bu baax a baax vraiment ñu koy gërëm li ñu ko doon doy ëpp na lu ñu ko doon doy franchement parler ma ñuy gërëm ne yëpp waaw jeune ni mu ni yowmal qiyaamati amul lenn lu gën a diis ci balance yi ñuy peser jëfi nit ñi lu dul ni jukko ju rafet moo ci gën a diis mu ni boo jëlee àddina yëpp teg ko ci benn balance jël jikko ju rafet teg ko ci benn balance nee na jukku ju rafet ji dana tël àddina la ca la ca nekk ak ak ci biiram àddina ak li ci biiram yëpp dana ko tël ba mu naaw dem fële te jukku ju rafet des yàlla nee ku def lu baax bu toloon ni atom dinaa la ko fay waaye ku def ñaawteef yàlla nee na bu tol ni atom te jéggal woo ko yàlla nee na dinaa la ko wan nga dig sëbat wàcce kaamil euh, bu ñu wàccee chaque année dañuy def conférence bi bu ñu wàccee kaamil ba pare ñu jox conférencier yi ñu waxtaan seen waxtaan conférencier yi nag ñaari conférencier la parce que euh, ki njëkk a ubbi waxtaan bi mooy Pape Sow euh, ki ci topp di Alaaji Fall woyof mbir ma gën a jàppandi mu ni waaye mbir mooma lu mu woyof woyof ak lu mu jàppandi jàppandi nee bu ci merub yàlla nekkee rek nee na pare na ci nee na kaana abaadu naasi lañ koy jàppoo te am nañ yeneen programme yoo dañ koy def waaye dañ di ay ndaw aussi di doog a door di doog a jóg soxla nañu aussi ay ay ay nit ñoo xamante ni dinañu mën a gën a gindi ñi ñuy gën a woon yoon bi ngir ñu gën a mën a jëm kanam parce que bëgg nañ def lu bëri waaye peut-être que am na idée yu des yoo xamante ne tey buñ ci amee kuñ ci jàppale dinañu arranger trop kon ñu ngi ciy def appel di ci woo ñëpp di ci woo képp. 2014 la ñu créé association bi. Rennes, ça a fait notre quatrième édition. Nous sommes ici. Et nous avons une conférence qui C'est pour le développement de Sali et Sasson, monitel, et le développement de Sali. Nous sommes jeunes depuis 2014. Nous avons commencé. Nous avons ici. Nous sommes ici. Nous L'avenir. Parce un homme indépendant. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous avons ici. Nous sommes ici. Nous sommes ma dee wax ni ma naa jàng naa dem jàng su ma demee ba pare ci jàng nag war a liggéey ma dem liggéey su boobaa nag moom fu gars yi coupe rek. ñu ngi remercier nag suñu partenaire bi Code TV incha allah dinaa wax ñëpp ñu dugg tey ji connexion ñëpp seetaan tey ji.